papa Ndiaye amul de. coppet moo am ah, mignon bëgg ci sa jabar. waaw sa jabar bëggal la. waa war na tax nga dikk ko loo amul. waaw parce que xam nga dafa bari ay avant éjaculer mën na lu ne. <laughs> Omar lu jóg. dafa bari bu jógee rek xamante ne jigéen ñi dina muusul di góor bu la loolam jógee lu mu la ay fen la moom tànk daanuwul bu bu bu wax waxam. dafa bari am dafa bari ay jeeg yu ñëw ci man di naqarlu. na ma sama jëkkër chaque jour mu dig ma lu mu joxewul chaque jour mu ne ma naa la defal nangam naa la yóbbu barab sàngam te du ko def du ma yóbbu ma ne ko ci ban situation la la koy waxee mu ne ma bu nekkee ci lal bi ba ma bégal ko la may dig te du ko jëfe ma ne ko yow yaa ko tooñ man sama vision lay wax parce que ku dem ba tàggali kook sagoom inconscient nekkatul xelam nekkatul waaw dëgg la xelam nekkatul mu dig la nga di ko gëm wéroo waaw da ngay bàyyi ba mu wàcc liggéey lu sit nga tegal ko ataaya mu naan tegal ko ceebu jën bu xonk bu am suul ak bëjëg mu lekk ba suur kooku lu mu la dig dëgg la parce que bi mu la koy wax il est naturel mais nga bàyyi ba mu tàggali ko sagom tabbi ci les gratte-ciel nga dugg dugg ci ay digge am di man d'accord ma xaw ma nag yow sa position man sama position ba la ba bëggee lu ma wax ma def ko man waddal ma sër bu wax romb antalu ma loolu ah, wala bopp marle bakkanu bopp marle fu mu tegee ba ba ba génn te <laughs> bu <laughs> ñu ko wootee surprise <laughs> yaa amal lii lan la. ay eh, lii la nii. boo paree bu wootee rek war a sëy daan di. am na am na bu këpp ataaya ji am na bu këpp ataaya fi toog pour nga conseiller Sénégalais yi. yee leen maa mënu conseiller si wàllu boobu dara ndax man ko concentré. yaa bëri na lu góor di diggee guddi. Mhm. bu xëyee fàtte ko. dëgg la parce que famille toll la. man lu ma la mës a dig naa ko man. fa muy ne bëgg ba diggee. Eh, moo wóor a dig def naa ko waxal waaw. xanaa da eh. nga waxal bien waaw waaw c'est bien. waxal waaw rek ñu avancé. Ah, Amadou uh-huh. nee na na ko uh-huh. uh-huh. bandi la nag. di nga yaaw mais loolu dafa am solo mais nag Amar booy dig sa jabar nag dig ko loo xamante ni. Mm-hmm. lu naturel la lu mën a nekk. waaw ci biir lu sud daal. man daal amul amul boo boo la si dul sax. non boo la suddul sëñ bi loo diggee sa jabar la ci farata si yàlla sunnas Muhammad yéen ñaar xamante ngeen da nga koo takk teral ko jaratul ngay diggee mais nag dafa am jabar yoo xam ne ñoo koy tay de ñoo koy tay ñooy bàyyi ba nga tàggali ko sago ñoo la lii laa bëgg ñooñu nangu naa mais xam nga xam nga ban laa bañ laa bëgg nag moom am di yaawa dañoo xam te dëgg Papa laa bëgg am na fu mu lay fekk barke Sëriñ Bamba doo ko rejeté da ngay d'accord boobu nangu naa dinaa ko def dinaa ko def képp ci tegu boobu nangu naa yaa aw mais xam nga ah. ban laay bañ mhm. sa jëkkër sangu nga sangu ba set ba nga war a tëdd nga dem indi facture yi ci kër gi yëpp boobu dama koy bañ na ko facture courant ngi facture ndox gi xale yi seen fayu école dama koy yàq ngoon nga ah foofu am na ñu koy def nag ay facture dama leen di jox heure bi c'est la révélation am dina <laughs> ñëw ak nga ko xam yaa ngi wax loo jeeg ji waaw ñi ne ci néegu sëy di seeg seeni borom kër